jëf yéen ñiy saxoo 7TV ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell asalaamu rahma wa barakaatu nubbi lislaam asalaamualeykum wa sante yàlla jure seen si bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur te ñaanal mi jàmm kilifa diine ya kilifa ade ñu leen di jàmm ñu nekk a biir kër Serigne Saliou waaye biir kër caatam ba muy Serigne Moutada Euh, tey nag moom ñu euh, yabal ñu benn jëwriñam ñu gën koo xam si Serigne Bassirou fay nekk jëwriñ si sëñ suñu Murtada Thiat mi nga xam ni moo waral ñu ñëw si kër gi ñu fas ne waxtaanee moom waxtaan bu am solo sëñ Bassirou dañu lay bàyyi nga nuyoog téléspectateur 7TV yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñu ngi nuyu mbooleem euh, téléspectateur 7TV fu ñu mën a nekk si àdduna góor ak jigéen ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ndokkeel ci bisu tey bu tedd bi mooy màggalu Touba édition bi ñu nekk nii. Euh, jërëjëf mu nekk euh, Serigne Bassirou Faye nekk jëwriñ li ma ko waxee sànq jëwriñ si kër gi muy kër sëñ Moutada Thiat nga xam ni euh, daanaka lépp luy kàllaama loo xam ne si média la war a jëm si moom mi lañ koy baaxee moom moo ko war a wax askan wi ba tax na dama koy bàyyi laaj ko ay question rek ñu dikk yaatal si waxtaan wi benn bi si jiitu mooy kan mooy sëñ moto Thiat. waa xam naa su waxee question boobu question bu xóot la waaye liñ ci mën a xam rek lañ ciy mën a wax. Euh, moom njaboot la ci njabootu Serigne Saliou yi aussi njaboot gu góor gi euh, ñi ci des a ko mag waaye nag euh, muy borom taxawaay lool macha allah ci li fi Serigne Touba indi woon mooy beesal lislaam ci Sëñ Touba wax ne diinun si waa islaamihi la yuhmat indal ilaahi wa bihi nu jaddit maanaam diiney lislaam moom la sun borom sant moom la gërëm te moom lay yeesal si waaw loolu nag dafa am continuité euh, ginnaaw Serigne Touba Serigne Saliou da ci am cër bu rëy rëy mooy daara yi di defar ndaw ñi di leen jàngal di leen yar di leen liggéeyloo di leen ñaqloo ci mbirum yàlla ba ñu làq ngërëm euh, bi nga xamee ne Serigne Saliou làqu na ci sunuy bët gisatuñ ko euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci njabootam wéyal liggéey boobu mu bokk ci ñooñu nag Serigne Mourtala moom Serigne Saliou ku ko defee liggéey boobu nag fi Serigne Saliou euh, teggee woon tànkam rek fa la ko teg di ko wéyal maanaam dara laalul suuf la sëñ bi bàyyi woon euh, yokk na ci lu bari ful ko ndax bàyyi woon na fi ci ay daara yi nga xam ne moom moo ko féetewoo si xel koom ñetti daara daaru Tanzil ma nga fa daarul Minan ma nga fa daarul Alim ma nga fa waaye benn bu ci nekk euh, ma ngay dox nam daan doxe ba gën a kawe sax ci limu ndongo yi. ak nam daan demee dara soppeeku ci sëriñ daara yaa ngi fa di jàngale alxuraan eh, gone ya xale ya ña nga fa di mokkal alxuraan di jàng xam-xam di ñaqal seen boroom di am ay ngërëm mu dolliwaat ci yeneen liggéey yu bees fu mel ni ngaabu nga xam ne yëfi sëriñ yu bàyyi woon la waaye mu yeesalaat ko boo nga xam ne dafa dëppoo ak jamono bi mu ko yeesalee tamit àndoon na ko ak mbokki taalibe yi nga xam ne ay taalubéem lañ ci keppaaru sëriñ Saliou ak jullit ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko jox seen bopp mu ànd ko ak ñoom defaraat ko ba mu mucc ayib def fa ay bâtiment yoo xam ne ya ne woon da ko réfectionné ba mu bees ñu def ko ci façon bu moderne xale yi nga xam ne dañoo mokkal alxuraan ci xel xelkoom yi mu leen fay indi di leen jàngal xam-xam di wéyal seen yar di leen euh, jàngal wàllum mbay ci façon bu moderne di leen jàngal ay yeneen xeetu mbir yu bees comme lu mel ni ay pisciculture nga xam ne yëpp yéene la yéene leen ko defal ba ci enseignement professionnel loo xam ne kenn ku ci nekk euh, fii xelam jëm euh, mu tàggat ko ci loolu ba nga xam ne bu ëllëgee su su wàccee dellu ci njabootam njabootam dina yóbbaale ay yar yóbbaale taalibe yóbbaale lislaam waaye yóbbaale métier mu mu dëgër ak xam-xam yooyu yëpp ay projet la nag yoo xam ne yenn yi tàmbali na donte. eggagul fi mu ko jëmee waaye ay yéene la yoo xam ne mi ngi ci aw yoon te tàmbali na ko ah, mbuur tamit fi ñuy wax Kër loo euh, defar na fa daara waaye nag xam naa ne tàmbali ko waaye defar na fa daara te xam naa yéeneem mooy samp ay daara wéyal njàngalem Serigne Touba ak li nga xam ne moom la doon ne si waajuram wi Serigne Saliou Mbacké waaw euh, ñu déggee si wax ji euh, daanaka fa waajuram bu góor ba tegoon tànkam amaana foofu la ko sëriñ bi teg maanaam si yan melo parce que suñu xoolee daanaka sëñ bi euh, sëñ bi sa bi dane woon jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom lu sëñ Tuubaa daan def si mag ñi tey ñu xool ñëw si këram gii ñu gis daanaka kër sëñ mu talaajaat ay ndaw doo nga fi nekk loolu nag li ñu si bëgg a jàngal mooy sëriñ bi daanaka wax ci sëriñ Saliou jëm la dégg moo tax mu bëgg jël basé wu lépp def ko si ndaw ñi Euh, liñ ci xam lañuy mën a wax baat boobu nag siiw na waaye man dama koy dégg rek ci nit ñi ñu ne sëñ saaliw moo ko wax waaye nag man mënuma koo firndeel wax dëgg yàlla ci wàllum xam-xam ak euh, li ma dégg ci sëriñ bi ak li ma xam waaye nag euh, kon dama ci taxaw taxawaayu ñoo ko déggandoo waaye li nga xam ne moom réalité la ñu gis ko mooy sëriñ bi mi ngi defar ay ndaw sëñ Saliou daan na defar ay ndaw ba ku leen gis xemmeem leen bëgg leen waaye sëñ Mourtada tamit mu ngi defar ay ndaw ba ku leen gis xemmeem leen bëgg leen ñu am jom boo xoolee kër gi de bi nga xamee ne l'an 2007 xew-xewu Serigne Saliou bi amoon na ci décembre ba euh, ak tey jii boo fi ñëwee li nga xam ne am na ay jéego yu mu seq yu yaatu yu jëm ci loolu te ñaari mbir rek moo am lu lu lu yokkul rek day wàññiku waaye lii nag yokk na bu baax a baax kon mbirum sëñ Touba la méngool tànki kanam rek la am waaye amul tànki ginnaaw ci biir waar woowu daal sëñ Moutala mu ngi eh, yar xale yi ndax moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ndaw ñi dañ leen a dëgmal ndax dëgg yàlla ndaw ñi ñi ko xam te ñi ko xamul ñi ko dégg wala ñu gis image am ku ko gis rek da nga am yéene ñëw saafonteeg moom ñenn ñi am yéene jébbalu dégg nga daanaka loolu Euh, sunu dund bis bu ne moo koy firndeel ñëpp fi bëgg a ñëw ñëpp ko bëgg a seet si waaw moom it muy ku baax euh, ku woyof kuy kuy misaal Serigne Saliou ba ñi ko gis walla ñu xam ko wala ñu bëgg ko dootuñu doyal si jotaayam ndax da leen di fàttali Serigne Saliou dëgg dëgg dëgg loolu nag xam naa bokk na ci li nga xam ne tax na ñëpp mal ko rawatina ci biir ñëpp nag ndaw ñi ndax ndaw ñi tam ñoom ñooy avenir àdduna loolu moom lu leer la. yàlla eh, ni mu doxalee àdduna day mel ni ndaw ñi ñoo ëpp te ndaw ñi it ñoom la ñuy gën a defar xam nga mag moom eh, war naa baax sax ndax baax lañ séentu ci moom waaye ndaw lu baax nag dafa gën a jafeeti ndax ndaw dafa ànd ak tàngooru yaramam ànd ak àdduna dëgmal ko ànd ak lépp wut si ko ci xeetu bànneex waaye ku mën a jël ndaw nag defar ko ba yooyu yëpp mu won ko ginnaaw dëgmal yàlla xam naa loolu mooy maanaam bi nga doon wax léegi ci jox leen ma ndaw ñi ah bu ko defee loolu Serigne Moutala am na ci cër bu rëy rëy te mi ngi koy doxal bu baax a baax. nga tëjal ñu fi euh, kàddu gi mooy organisation kër bi ndax suñu ñëwee dinañ fi fekk organisation bu mag euh, sëriñ bi ni ni ko jàngalee neem noonu lañ koy defee si yan organisation lañ nekk fii si kër gi. waaw organisation yi moom dafa dëppook ni sëñ tuubaa diglee rek am bi moom bi nga xamee ne jaar na ci nattu yi digganteem ak tubaab bi. E, jaar e, Mbacke Bari jaar ñu Louga ak fi mu jaar yëpp ba egg Ndar bañ àtte ko indiwaat ko dakaar ba déporté ko mu dem Gabon fa mu fa jaar yëpp ak maa yomb foofa gën a metti ba delsi dafa dafa ne dafa dafa dafa firee coono yooyu ak cant maanaam amul jotu fàttaliku li ko noon bi tegoon jot gi mu ngi ko jëmale ci sant suñu boroom ndax li ko ci sunu boroom xéewaleel gàccaal na ci ay jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ko ci tegoon te jafe-jafe yooyu maanaam zahir kese la waaye ndekete baatin bi mbirum Sëriñ Tuubaa moo nar a jolli jëm kaw ba ba kenn xamul fu mu yem moo tax yàlla e, doxale ko noonu kon day mel ni sax jàppewu ko ne e, ay ay ay ay jafe-jafe la waaye yàlla moo nar yëkkati mbiram tax mu jaarale ko ci tukki boobu bi mu ñëwee mu am nga ñaay yi mu am ah, bi niñ koy defee nag mooy e, sant ci lislaam moom tuur deret dañ ko dañ danañ ko ko defee sëñ Touba loolu la digle maanaam ci ginaar ba ci gileem rendi ah, joxe ay bernde waaye lislaam ginnaaw moom mm, dafa am ay cosaan lu mel ni tudd yàlla lu mel ni jàng alxuraan lu mel ni ay julli jàng ci xasaay di salawaatu ala nabi yooyu yëpp dañ ko ciy boole ndax jullit moo amul jotu perdre temps ci dara bu ko defee yooyu yëpp day taaral bis bi bokk li nga xam ne nag mooy sookul bi dëgg-dëgg mooy bernde noonu la ko sëriñ bi digle woon ñun nag fii ci kër gi noonu lañ ko defee daanaka le 16 commencé nañ gan ñi di di ñëw le 16 euh, safar euh, ñu tàmbali leen euh, bernde la le 17 noonu ba le 18 bi su màggal gi ñu ñu ñu muy dëgg-dëggi màggal gi tam ñu defee ko noonu ci xeetu ay xar ay nag ay ay volaille xeet yoo xalaat rek ak lépp loo xam ne eh, jàpp nañ ne boo ko joxee gan mu bég ci lu dagan Eh, waajal nañ ko ci kër gi di di ko def loolu mooy côté bi nga xam ne yooyu am na ñoo xam ne loolu yitteel na leen lool waaye ci bernde gi tamit wàllu spiritualité am na ci moo tax euh, booy xool programme mu xasaayir yi mi ngi euh, démarrer le 17 nga xam ne mboolem kuréel yi nga xam ne ay taalibe sëriñ bi lañ nekk ci région yi ay Kaolack ay mbuur ay dakaar HLM kenn ku ci nekk ñëw nga def sa prestation fësal sa yéene ci xasaayit yi tey jii le 18 dalee nañ ko njàng alxuraan def ay azkar ñaan sëriñ bi génn na saafonteeg taalibe yi daanaka ba tis baar mu julli ji ba ñëwaat lay doog a duggaat nii ci biir euh, te bu ngoonee it bañ dallu tuuti dañ koy wéyalaat tamit ba fajar le 18 bi ba fajar ànd kook euh, daayira Nahju Xadaa il Haaj bi nga xam ne daayira sëriñ Mutala la niveau national ànd kook Safinatul Amaan ci njàng xasiida ñoom ñenn ñi ay taalibe sëriñ bi la ñenn ñi ay wëllëre yoo xam ne dañoo yàgg a taxawee loolu ci biir kër gi di ko wéyal ndax seen kóllëre ak sëriñ Mourtada loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañ fi def bu dee ci côté xéewal itam am nañ ay barab yu wuute waaye xëy yëpp foo ci dem rek di nga di nga di nga sant euh, ci biir sëriñ bi am na ay gani boppam foofu ñoo xam ne ñu ko jege lañ euh, am na barab bu bu macha allah yu ñu leen di toppatoowee euh, fii ñu nekk nii nekk nii mooy secteur culturel bi. ci ginnaawam tuuti am na feneen foo xam ne dañ fay berndeel gan guy doog a ñëw war a dal tuuti jël lu sedd féex boo demee ci beneen wet ga am na beneen bâche boo xam ne ñëpp lañ ko ubbil te day dressing yu am solo lay doon donte ñiy jaar ci mbedd mi sax di jaay ba yegg si fi euh, yëg ne soxla nañ luñ bu ñu fi jàddee danañ am luñ xéewloo euh, ci ci bernde Serigne Touba yi naan yi tamit yu sedd yi ak yu tàng yi yëpp 24 sur 24 ci ñaari fan yi màggal bisu màggal ak ñaari fan yi ci topp lépp dañ koy joxe eh, ngir jëmi Serigne Touba loolu moom mu ngi ci programme bi. xam naa am na tamit euh, ay innovation yoo xam ne sur le plan communicationnel la rek euh, mooy euh, projet yeesal la boo xam ne taalube seriñ bi ñoom ñoo ko sanc xalaat ci ànd ak Serigne bi ci daare yi fépp fu mu rek eh, eh, gis leen fa. ci ay plateforme digitale ak ay euh, plateforme yoo xam ne financier taalibe yi fu ñu mën a nekk si àdduna rek mën cee tàbbal seen barkeelu ngir liggéey bi jëm ci kanam rek ba faw ci keppaaru sëriñ Mouhamadou Mourtada moom sëriñ Saliou Eh, jërë ngeen mu nekkoon eh, sëriñ Basirou Faye nekk kenn si yi sëriñ bi waaye nekk kenn si jëwriñu sëriñ bi waaye nekk kenn it si nga xam ni moom moo yor communication sëriñ bi ndax ñi ngi koy wax sànq si biir wax nee nañ leen sëriñ bi daanaka moom ay waxam daa néew lool waaw moo tax ñoom ñii lay yebal eh, daanaka ñuy wax si média yi wax si pour communication bi mën a jàll baax sëriñ Basirou dama lay bàyyi nga tàggatoog téléspectateur 7TV man ma doog a tëj jotaay bi. Euh, am na mbégte lool si euh, occasion bi nga ñu may nii. ñu fësal euh, mbirum sëriñ bi mbirum sëriñ Mourtala moom sëriñ Saliou ndax day dox doxin woo xam ne euh, waaw ñu bëri mën nañ koo bañ a xam waaye ñi nga xam ne dañuy wut lu baax bëgg ko daan ko gis nii rek ci image yi sopp jëmmam bu ñu seetaanee lii danañ xam lu bëree bari ci doxalin wi nga xam ne ku ubbeeku la ku bëgg a defar nit ñi la te kuy defaree bu sañoon gis kum defar te ku mën a defaree la ku bëgg defaree la kon ñëpp tàbb si ci mbirum sëriñ Touba ànd moom. loolu nag du xëcc mbooloo wala dara waaye gis lu baax yéene ko ñëpp rek la te leer nañu ne loolu mi ngi fi kon ñu ngi jaaree ci loolu di sant téléspectateurs yi fu ñu mën a nekk di ànd ak ñoom màggal gi di ñaan yàlla sunu borom e, jaamu yiñ ci def ak bernde yi lépp rek sunu borom wëlbati ko def ko ay e, ngañaay séddale ko taalube Serigne Touba yi nga xam ne def nañ ci liñ mën ak liñ mënul. Euh, séddale ko jullit ñëpp ndax sëñ Touba jullit ñëpp la njaboote woon séddale ko tax àdduna bépp ndax moo wax ne yaa malikal mulk yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadin radaa te ni wara moom bu ñu waxee mbindeef ëpp na sax doomu aadama kon sëñ Touba ñëpp la yiir ñëpp la yërëm yàlla nañ ci dëppook tawféexam jërë ngeen jëf waa 7TV jërëjëf euh, sëñ Basirou ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax baax lay ñaanal yow it xam-xam bi nga fi wax yàlla na nekk xam-xam boo xam ne day gën a ñëw law si yow bu baax baax baax ñu la koy ñaanal bu baax si bàkkeeb sëñ Moutada bi nga yaakaar loolu lañ leen indiloon fii nga xam ne mooy que sëñ Moutada Thiat bi nga xam ne mooy caatub sëriñ Saliou waaye gis ngeen ndaw ñu niñ ko soppee gis ngeen mag ñi ko bëggee ñun ñëwoon nañ fi amuñu fayam ndax euh, li may faral di wax rek feccu lii su neexee nday jaa jàpp sa mbagg ja waaye ku xool sëriñ Saliou gis gis sëñ Moutada loolu moom ñun leer nañu bu baax baax baax ndax ay taalibi Serigne Saliou lañ xam nañ Serigne Saliou ni daan doxee bu baax mais ku gis Serigne Saliou rek gis nga sëñ Moutada ñu koy ñaanal Mbàkke Balla mu yàgg fi loolu te ànd ak wër fii lañ ñëwoon si Jannatu Mahwa ak pencum euh, Serigne Moutada Thiat euh, di leen jox dig daje si kanam tuuti si yeneen numéro asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh